ndax du kun ni kilifa rek nga sañ a wax ndax démb rek xëy na xaw na guddi mm-hmm. mais ñu ngi ci doon gëstu mm-hmm. ci borom bi subhaanahu wa ñaata yonent la am mm-hmm. mais est-ce que ñëpp la waxloo dëgg la déedéet waaw waxloowul ñëpp ndax lii góor gi waxoon rek xafidahullah wa yad waraa am na ñoo xam ni seen xàmmee ak seen dégg ak seen jom àggul ci ñu wax ak mën a jàkkaarloog penc mi di wax ak ñoom mhm. toj toj rek waaw ko yam loo rek ndeysaan mhm. mhm. moo tax yàlla ni leen waaw jox naa leen bu gi waaye nag na yem ci yéen dëgg la nga toog sa kër sa famille sax sañoo leen woo waaw ndax ñor ga àggu fa maturité ba àggu fa xàmmee ga àggu fa kon moo tax du ku ni kilifa rek nga nga sañ a yëkkati kàddu daal di wax waaye ni mu ko waxee moom góor gi ni mu ko jàngalee mooy ñi nga xam ni balaa ñoo wax kàdduk asamaan jib ba noppi balaa ñu naan déet mm-hmm. kàdduk asamaan jib ba nopp dëgg la balaa ñu naan waaw waaw asamaan jib mm-hmm. mi ñu ko doon jàngal ca 2012 dëgg la ba ñu nekkee ci wàccaayu élection ya mm-hmm. ndeysaan fa tabarakallahu kon kooku bokk na ci kilifa yi nga xam ni am nañu sañ-sañu wax ndax ñu ngi ciy waxtaan keroog maak imam bi ma ñëwee ci kër ga mhm. waxtaan bi def ci lobalis fii ndeysaan bi muy waaj nee na di dem nee na benn mbokk ni ko ah lam bi wax de ibbi na ci Sénégal lam bi wax ibbi na ci Sénégal ibbi ci Sénégal waaw mu ne waaye ku noppi nag doo daanu waaw ku noppi doo daanu mhm. waaju wax ko loolu wax ko Serigne Moustapha wax ko Serigne Moustapha mhm. Serigne Moustapha tontu ko ni nag ki nga xam ne yàlla moo koy wax loo yoonam ca làmb ga waaw ki nga xam ne yàlla moo koy wax loolu ndigal lay waxee ndigal lay waxee mhm. yoonam ca làmb ga dëgg la yoonam ca làmb ca làmb ga <laughs> waaw waaw yoonam ca làmb ga mhm. làmb ja waaw làmb ja <laughs> <laughs> waaw kon li mu ëmb dafa bari mhm. tey nag bari na lu yàqu ci société bi ñi ñi tuddee ay kilifa te matuñu ko bokk nañ ci li ñi yàq lu bare baree baree bari dëgg ndax li Serigne Cheikh waxoon ni am na loo xam ni sawar làmmiñ jaru ko ndax yëkkati kàdd goo xam ni dafay wëlbati ko doon pochette. Mhm. dugg ci sa biir yaram doom juddu yàqu sët juddu yàqu sëtaat juddu yàqu nee na loolu sa war a ko mhm. moo tax booy àddu rek na fekk ni li ngay wax posé nga ko ci blanche yëpp xool ba xam njariñ ji mhm. ñëpp dinañ ci mën a jariñu waaw wala déet nga soog kaa génnee moo tax Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al dafa jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni bi mu féetee ndaw mhm. bi muy ànd ak ay ay moroomam dafa bëri woon lu muy noppi mhm. bàyyi leen rek ndeysaan ñuy wax rek waaye nee na bu àddoo rek ñëpp ñi teg ah. eh, sànq imaam mi ngi joxe exemple ci góor gi mhm. maam Cheikh Ahmad Tidiane capitaine xafidahullah li coow li di bari bari ci barab bi parce que fa tabarakallah macha allah ñëpp teg nañ ci seen bët ñëpp seede nañ ko waaye bi mu àddoo rek nga dégg ñëpp ni tek di ko déglu jox ko nopp ñu xam ni kàddoom lii wax ji di bari bari bari bari bari mhm. li mu conclure moom la ñëpp di jël te moom lañuy jariñoo kese waaw moom la ñuy jariñoo ndax li nga wax sànq kàddoom mooy kàddu gi mhm. mooy wax ji kon ñooñu dañuy bëgg ci ñoom jamono bi nekk ñuy wax mhm. ndeysaan euh, bu ko defee rek yaakaar naa ñu ngi koy tudd bi passé ci émission bi Oustaz eh, Ndiassé ñu ngi koy nuyu sax de eh, passage waaw di ko jaajëfal bu baax a baax taxawaay bi am na solo ci li Ibnu Achir wax mm-hmm. mooy yasxabu cheikhan aarifa almasalik mm-hmm. yaqihi fi tariqi almahalik mm-hmm. maanaam ki nga xam ni moom la nit ki war a àndal mu nekk kilifa gu xam sóobuwaay yi aarif almasalik du du yëpp du kilifa yëpp ndax kilifa goo xam ni mm-hmm. bari na kilifa yoo xam ni daanaka njaboot ja ñu am sax ñu baal ma ci kàddu bi ñoo leen xaw tane mm-hmm. ñoo leen di gàgganti ci yu baree bari mm-hmm. waaw waaye booy ànd da ngay ànd ak koo xam ni ku xam sóobuwaay yi la waaw li Seydi Cheikh El Hadj al Fuuti waxoon waaw ki nga xam ni an yakul al amir wa an yakul na naahi bi mustawa al xaqaiqi musayta waaw koo xam ni fii ak vingt ans dana xam lay xew yàlla déey na ko yii xew yàlla déy na ko fi jamono toll yàlla di ko xamal lu dul xamal kenn kon kooku bu waxee sañ naa wax kon it képp koo xam ne da ngay wéeru da ngay wéeru ci gannaaw borom dayo ya ki nga xam ne xam na aarifal masalik mhm. yaqihi fi tariqil mahalik mhm. di artu njabootam waaw artu njabootam def leen nangam bu leen def nangam moytu leen nangam jamono bii day jamonoy dox sa farata la te toog ci sa kër mhm. loolu kilifa goo xam soobuwaay moom moo koy def waaw kon su ko defee maam roqee mhm. du ku jug rek ñu ni kilifa la rek nga sañ a addu dëgg waaw mhm. du ni ku ni kilifa nga rek nga sañ a mhm. waaye kilifa ga sañ a addu mooy li ñuy wax sànq critères yi dafay daje ci moom mooy mu dikk nopp borom bi subhaanahu wa taala waaw mu di ko wax loo di ko digal. Mm-hmm. di ko tere. waaw ñu ngi jégalu. Mm-hmm. ñu yemale ko foofu rek. am na solo <laughs> oustaz xam naa ñi ñuy seetaan dégg nañu li mbokk yi indiwaat ci kilifa. moom mooy que ne kàddu kilifa am gi mu am solo moo tax mm-hmm. kilifa ga waxoon rek Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum. nee na am na ñoo xam ne bu ñu waree wax jar na ñëpp dajale la ñu am ñu noppi. waaye am na ñoo xam ne bu ñu waree noppi jal na ñëpp dajale lañu am ndax ñu wax.